ñu ngi leen di ziar bu baax te di leen balu àq te di leen balu àq di jiital ci nuyoo bi suñu kilifa gi sëñ Cheikh Aziz di di nuyu bu baax sama sang yi ma bokkal jotaay bi te di leen delloo di gërëm ci confiance bi placé ci man ndax àndandoo bi maa ci gën a suufe tax samay sëriñ rek samay doomi sëriñ laa fa àndal ab murit nag lépp lu muy wax ba woo ko ci liggéeyam Sëñ Tuuba jàpp naa ne ab tawfeex la ci moom xëy na kàddu yi du du mën a gudd lool waaye damay tàmbalee ñi nga xam ne ñoom laa àndal liggéey bi yëpp xëy na fii du jotaay buñ mën a limee waaye kenn ku nekk ci ñoom xam nañ li mu daj ci liggéey bi ñu ngi lay ñu ngi leen di biral seen sunu reconnaissance ci ñoom wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañ euh, ba ñu tàmbalee ba tey kenn ci ñoom yendalul kenn ci ñoom fanaanalul ñu leen ci sant bu baax a baax wax ji nag damay rebondir rek ci li président waxoon sëñ Cheikh Abdou ndax ni mu tënkee wax ji matale na ba daanaka xëy na luñ ciy yokk amul solo donc luñ ci mën a yokk bariwul donc peut-être samay wax dama koy orienter plutôt pour ci yi xam ne li suñu jàmbaar ja waxoon ne gëm ak yaakaar ak wóolu sëñ Tuubaa rek lañ ko def te kon murit bi nga xam ne dafa jug di màggali yaakaar sëñ Tuubaa rek moo ko tax jug di dem te liy waajo waxoon ne nag fu fu ñuy dem ngir yaakaar kenn du fa tase yaakaar kon nit ki nga xam ne dafa jub ngir wuy ji sëñ Touba lu ko mën a fekk ci yoon wi yell na waa kër sëñ Touba taxaw ko te sax bu fekkente ne dañuy demee xel mu rafet rek jamono moo toll foo xam ne man sama conviction mooy sëñ Touba fa mu toll ci boroomam ñun lott nañ ci xam ko ndax kenn ku nekk si ñun gis nga ci ay bindam moo waxal boppam ne taa rasulallaahi lii fawqa matlabi minallaahi rabbi war a jàllam yu xayee bi maanaam samay pàgguteef sama sama samay pàgguteef lu mu kawe kawe fekk naa sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy sama sangu faggul na ma ci suñu borom lu kawe samay pàgguteef kon donc luñ ci mën a gis xëy na mun nañ koo tuddee innovation mun nañ koo tuddee leneen waaye lu ci nekk rek fekk na sëñ bi moom loolu yemboon na ci moom ba noppi xëy na waxtu waa jot rek mu feeñal ko kon loolu man dama koy jàppee ne ku ne am nga sab tool ku ne am nga sab liggéey ku ne am nga sa sa sab jihaad waaye damay jàpp ne ñun murit lii mooy suñu jihaad ni ko sëñ Cheikh Abdou waxee rek màggal gi bi ko sëñ bi wootee ci jaam yàlla ak berne la wax nit ki mënoo koo berndeel te yëgut wér-gu-yaramam kon suñ buntu jihaad mi ne ginnaaw bi nga xam ne alxuraan dafa waxoon ne wallazina jaahadu fii naa la nabluwannahum subulanaa kon bu ko defee may soññaat sama bopp di soññaan mbokk yi kenn ku ci ne interlocuteur direct nga kenn ku nekk it porteur de message nga ginnaaw ba nga xamante ne sa effort personnel bi nga xam ne ñu ngi koy xaar ci yow nga def ko kenn ku ne da ngaa war a vulgariser effort yi ñu la suñu booleel ak ña aju ci yow ndax it wax dëgg yàlla jamono moo dox ba toll foo xamante ne xëy na li nga xamante ne farata la nit ñi dañ koy oyofal waaye murit moom liy fardu laa ni ci moom farata goo xam ne moom dara du ci wàññeeku mooy ndigal waaye comme li ñuy def nag ndigal lañ ci am wax dëgg yàlla te ndigal loo xam ne taxaw doomu aadama rek suñu borom sàkk lu gën a kawe doomu aadama suñu borom sàkk lu gën a kawe doomu aadama kon lii bi nga xamante ne wax dëgg yàlla assistance la ndimbal la te jëmut feneen fu dul kër sëñ Touba ni ma ko doon waxee rek waxkat bi dafa woon ku bëgg a ñibbi aw seen yoonu kër te waa kër sëñ Touba kër sëñ Touba rek mooy seen kër waaw kon li may li ma ci sof rek mooy kenn ku nekk ci yéen yaakaar lañ am ci ñoom yaakaar jooj nag ñu ngi ñaan yàlla yàlla bu ko yàlla tas waaw ñi gàttal wax ji foofu di ñaan suñu borom mu defal ñu si tawféex ak taysiir te lépp dajeeg tawféex sëñ Tuubaa ni ko sëñ Cheikh waxee rek journaliste yi ñu ngi compter si ñoom ngir fi nga xamante ne xëy nañu suñ kàdd kàddu àggu fa bëgg nañ ngeen àggale ñu fa di leen sant bu baax di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. al